Assalamualaikum. Yo hatu tiga inyo, cuma memang experience ya. Oke. Kita graf ke wakan ciu ciu walaf. Gak af masih ambil. but also in English, so everybody is listening will be able to know what's going on. Okay, assalamu alaikum. Just que ñëpp yéen a ngi ci jàmm. dama bëggoon def benn point bu gaaw rek maa ngi fii tey uh, ci cabinet suma avocat fii ci Dakar Ahmed Bamba Cissé pour apporter quelques clarifications bi ci jiitu mooy uh, li policiers def seen press release démb ci guddi ak tey ci suba wax dama ci bëgg a li ci ay auberge sendu amuñu ay maison li ñu am mooy li ma expliqué woon man sendu ñaari kër laa fa am kër boo xam ne c'est maison privée man maa fa dëkk benn kër boo xam ne dañuy daje dañuy dend euh, benn français moo ko doon jaay bu tudd Robert mu jënd kër gi bi ma ko jëndee li taxoon ma def année damay recevoir chaque six mois ay gan yu jóge fu nekk ci àdduna bi di ñëw fii di volontaire suma organisation di ma jàppale ñoom ñëpp xaju suma kër foofu laa leen doon dalal ma ne genn wàll gi nañ ko def libre bi amul ci dëkk bi mooy bibliothèque ma def ci suma xaalis dem bitim réew uti ay livre ay livre waa dëkk bi yëpp seen jàppale ma ci maire bi di sama partenaire un jeune frère mboolem ñi nekk seen jàppale ma ci war def def ci ay ordinateur xale di ñëw di fa jàng si bi ñu demee ba xale yi ñëwatuñ la ba 2017 dañuy sàcc xale yi ba 2018 problème bi fa amoon ñu tëj librairie bi maire bi ñoo ne ma ñoom amuñu fu ñu réunion ba tey jii may wax ak yéen.

appartement meublé lañu wax moom lañ fa bëgg a def comme man sama gan yi fa la ñuy dal ñoom aussi ñu koy loué bu ko defee ça crée un peu d'emploi pour ñoom noonu lañ jëlee jigéen ñi fay liggéey ci seen luñ dëkk jeunes yi fay liggéey ci seen luñ dëkk d'accord ma woo leen ba ñëw ma tag leen ma ne leen dama am réputation ci dëkk bi ak ci àdduna bi pour jox leen lii ngeen exploité ko première chose mooy bëgg ma fa gis alcool parce que doomu jullit laa du boobu bëgguma fa gis jigéen ñuy taxawal ku am 18 ans bu mu fa dugg ngeen ut registre ngeen topp loi dëkk bi lépp lu loi yi war a def ngeen def ko parce que bëri na ci nekk si dëkk bi am ay appartement te amuñu benn kayit su fekkee man dañ ma bëgg a ma parce que sumay frère ñi ngi liggéey dem ak appartement meublé di ko luye kon nañ jàpp Sénégal yu bëri parce que ñëpp loolu la ñuy def ñu bari fii te man nekk ma ci ay appartement meublé sama business nekkul ci loolu. ay jeunes laay jàppale jox leen suma kër boo xam ne suma tour la nekk mais entreprise bi nekkul suma tour première chose laa wax naa leen ñu dem APIX boutique yi man maa oo le DG de l'APIX si mu boole ma ak les gens de l'APIX mu dem booy dem foofu ñu defar leen kayit wala les preuves dana publier ci internet bi ñu gis ko ok li APIX moo ko def attestation bi amin ni ne yaa baa ngi nii ngeen gisal ko seen bopp da ngay zoom tuuti ko seen ñu xool d'accord c'est bon ba li fi nekk yëpp document yaa ngi nii danaa ko publier hmm? nga arrêté tuuti après moo ne voilà bii mooy NINEA boo xam ne APIX la ko booy defaree première chose mooy mu nekk entreprise boo xam ne au moins bu bu at bi jeexee na leen ngeen fay taxe parce que dëkk nekk da ngay fay taxe document bi attestation de propriété léeg-léeg la ci sama tur nekk yëpp ci kayit ma fay ci taxe yi ma ba ma ko li ma ci war a def ma def ko d'accord bu ñu demee ministère tourisme ministère tourisme ñoo joxe document bi ma lire ko ngeen dégg je signais madame Sow Ndé Awa Batch, bi du tourisme chef du service régional du tourisme de Dakar atteste que le dossier de la résidence meublée le dossier de la résidence meublée à l'enseigne Sendou International House encore du auberge du hôtel résidence meublée ñoom ñoo ko bindal seen C'est le ministre tourisme la li falsifier jox ci de International House, 6 à Sendou, quartier Tiosan, géré par Bassirou Nian, et bien en instruction au service régional du tourisme. D'accord En foi de quoi le présent, la, présent, la présente attestation lui est établie pour servir et valoir ce que de droit. ministère du tourisme. Bi ñu les documents yi xale yi ñoo def lépp ñu ne ma ba léegi police yi ñu di leen laaj xaalis di leen sonal parce que noonu la ñuy def yeneen yeneen résidence yi nekk foofu mën na leen bu fi kenn joxee te xaalis parce que vous êtes légal utal ma rendez-vous man ma demal suma bopp ba ci commandant bi parce que su ma bañu doon lu jóg du ma dem parce que pour soutenir la moo tax ma def loolu may dem tool ba fajar sama yoon bi ma jógee Paris ma dem ba ci commandant bi wax ak moom ma jox ko dossier yi mu teg ko mu may dëgg commandement bi ne ma dootul fi ñëwati jeex na d'accord loolu ça fait presque un mois weesuwul chaque semaine ñu encore ñu ñëwaat di di ñu di di di sonal booy chaque semaine ñu ñëwaat chaque semaine ñu ñëwaat mais bu yem foofu ci auberge si si si si résidence bi ñu wax ni moom la auberge la pour ñoom man je peux comprendre mais man géré wu maison la la am jox nañ ko pour ñu exploité ko dafa mën fi ne illégal li ñu wax ne amuñu kayit du dëgg am nañ kayit li ñu wax ne dañ fa jaay alcool waa seen yëpp a may dégg ñoom laa jël témoin tey ak gannaaw yàlla bu fi journaliste dama déglu dama bëgg ngeen dem yéen seen bopp ngeen investigué ci ngeen laaj benn ku dëkk sënd dalee ko ci maire bi ba ci suuf wala ku fay jaay wala jigéen bi il faut war a dafa dugg wala ko amul 18 ans dafa duggu te registre bi ñu wax am nañ ko ñoom ñoo fa ñëw dem jël registre bi nga xam nañ li ma bi xam nañ man lu ma représenté foofu ak ñun lu ñu représenté si dëkk ndax dëkk la boo xam ne dañ ma dalal aba ak dalal boo xam te ni moo tax man ma def ko suma dëkk te ba ma fa nekkee ba léegi liy contribuer ci dëkk bi ci laa nekk kenn mosuma dégg ci problème ci réew mi kenn mosuma dégg ci problème ci fi ma maintenant bi ñu commencé ñëw man suma kër dama agressé pas ci beneen xat kër bi mais suma kër la ñuy ñëw di laaj fan laa dëkk di laaj fu ma nekk lu may dugg mu ma jëlee suma xaalis sant ci suba rek bi may jógee fii am na ay policiers yu civil sol ay bàyyi yére bàyyi je respecte les institutions de mu pays et je respecte corps yi dama dëkk yi fi nekk yëpp je respecte la police je respecte la gendarmerie je respecte institution yi fi nekk yépp parce que kor yooyu man fan naa liggéey bi ñuy def si biir dëkk importance bi ñu am d'accord ñu ngi sàmm ñu bëri ci ñoom ñu def liggéey bu extraordinaire ku mel ni commandement boobu ak respect bi ma jox bi ma ko man aussi mais dañ koy wax te dee daf ci bëri ñu corrompu d'accord def ci bëri ñoo xam ne xaalis rek moo leen tax a mais booy dañuy ñëw foofu duñ sol tenue doo xam nga ndax Baye Fall doo xam ne kii di ñëw sama kër accord bu fekkoon dañuy indi convocation suma kër nga ma kaay uyu lii wala ñëw jàppale ma jox leen ma sama loxo ne leen déleen ma ñu dem d'accord indiwuñu convocation di romb suma kër mais ni man dama nekk ci lu illégal wala ñu dem ci sax business bi dem def loolu mais suma kër lañ ñëw di agressé sama gardien

mais boo ñu soxla affaire yu Baye Fall fii yaa ngi dégg ngeen jégal ma ci kàddu parce que man sama mam Baye Fall la yaa ngi di romb ci kër gi foofu dem ak nyom armée mu xawma kan ñoom laay waxal fu dugg suma kër ñoom laa wax démb te dama koy répété waat balaa ngaa jël sama bakkan bi man du ma ko seetaan je prends l'opinion maa koy répété homme de loi suma di wax ak man mako koy disrespect li ñu ma def ko defoon du la neex pour pour retourner ci send boobu ma nekk dama dëkk dëkk dëkk boobu ba pare du fa def loo xamante ni dama ko def en tant que citoyen waxuma ko pour wanewu de parce que maa ngi fi nekk boobu léegi kenn xamul lu may def ci biir dëkk bi damay nekk Sénégal ba génn réew mi kenn xamul na maa ci biir réew mi billaahi damay ñëw fii ba dem diggante sama tool yi ak àll su ma nekkoon koo xam damay ñëw di wanewu fii wala def loo xam koy wax almadi laay dëkk di ya, def kan lu ma neex ci biir dëkk bi parce que am na suma morom yu koy def ku la nekk ci club yi topp jigéen ñi def lu ma neex du ma def loolu man man dama ñu gëm ne suma réew li ko war a développé waruñ ko bàyyee gouvernement bi kese parce que loolu laa gis bitim réew ñun dañoo am rôle bu ñu ci war a il faut ñu jàppale les pouvoirs publics ñun ñi nga xam ñoo demoon bitim réew ba war a ñibbisi ak ñun ñu nekk sur le côté privé pour créer de l' parce que suñu dëkk bi jeunesse bi dañoo soxla emploi loolu tax bi ma ñëwee ma dem dëkk Sendou di fa def li ma mën nekk comme sama morom yu bëri ñu ñibbisi d'accord Sendou bu ma ñëwee li ma def mooy waxtaan ak maire bi ne ko lu ma leen mën a jàppale a en tant que citoyen comme Washington Kaolack bu ma juddoo man fii laa tàmm mu ñëw Sénégal maire bi ne ma xale yi soxla nañ librairie ma ma indi librairie ma gis suñu bu ñu koy day taa ma def pavage yàggul dara un mois ma gis xale yi dañuy dox quinze kilomètres par jour dañuy def quatre kilomètres qu'est-ce qu'on pour résoudre cette mu ne ma ba seen di am ba léegi mosuñu am bés boo xam ne dina yóbbu xale ñuy jàngi mu ne man sax si laa jaar xale yu bëri tey jànguñu sendu bàyyi nañ jàng la amuñu fuñ dem ndax ndox bi dañuy sonn buñ demee ne wala bu ñu wàccee dañuy dañuy nelaw lu mën a man ma jël suma xaalis ma jënd bus ma def partenariat ak maire bi moom mu def ci essence ma jël chauffeur ñu ñaar ñuy cotiser ci loolu ma teg sama oto depuis un mois ba léegi ku la neex mooy ma laaj sënd xale yi sënd yëpp chaque jour chauffeur bi dina def cinq aller retour la yóbbu école bari yi premier voyage ma ànd ak ñoom ba ci ba ci école bi wax ak principal bi sënd yëpp rafetlu loolu nga ñun ak maire bi ñoo ci ànd ci liggéey d' bi beneen affaire bi am bi ma gisee booy yu bëri foofu jànguñu maire bi na ma li tax jànguñu mooy amuñu bourse booy yu bëri bu ñu demee Dakar amuñu fu ñu jàngee mu utal leen ay bourse chaque année booy yu am bac foofu ñu si bëri dama leen di jox bourse ñu ñëw Dakar fii di jàng si ci université yi am na si ñoo xam ne ren trois ans yi nii ren la def seen seen seen seen graduation d' ma fay créer emploi seen du ngeen gis noonu lu muy tuuti tuuti tuuti bëri na jeunes yu fa nekk yoo xam ne mën nañu liggéeyal tey plus de quarante ba cinquante personnes man maa ngi jël ñuy liggéey seen du jigéen ñi ak xale yi fa nekk te chaque fin du mois ma yëkkati xaalis fay leen d'accord pourquoi may def loolu yëpp parce que li ma wax sànq loolu daf ma war dama ko def sans bruit parce que suma réew la. d'accord accord réew bi kenn ëppale mooy foofu naa ko démb donc dama am ay devoir ci réew mi moo tax ma retourner suma réew te accomplir suma devoir mais aussi dama am ay droit ci réew mi d' accord te je fais encore appel que suma état que suma devoir dañ ko war a sàmm amul kenn ku am droit sans am convocation wala juge di ñëw suma kër di ma harcelé ci loo xam ne man suma yoon nekk ci bu ñuy harcelé sax dañ dem harceler le gérant te li ñu may harcelé loolu li ñuy harcelé gérant bi dafa nekkul ku bëgg xam nga ñëw seenu nga laajte dafa nekk duñ jaay ñoom duñ jaay alcool foofu ay paas amul foofu man xam naa ku ma doon ñoo xam ne du ko def suma réew du ma ko def sax bitim réew kenn mësuma xamee yooyu seen sama tool yi ay millions laa fi def jël ay jeunes ay centaines de jeunes yi ngi foofu di liggéey parce que liggéey laa gëm li ma am wax mayuma ko lijjanti mayuma ko yaa ngi dégg di di di affaire client mayuma ko di dem di ñaanaatu mayuma ko dama ko liggéey li ma dul nangu nag mooy ñëw suma réew fii ñu ne ma doo ko fi defee je serai en face je vais pas l' accepter ku mënti nekk man xam ne ñoom si boppam dafa am ñu nekk si ñoom seen gannaaw ñu ñëw di ma agressé mais du ma ko nangu je vais porter plainte d' accord ngi remercier ñi may déglu maa ngi remercier ñëpp ak un soutien gis s'en ko que l'idée courante est qu'on ne peut pas laisser à l'État alors que nous devons nous en tant que citoyens faire quelque chose pour la création d'emplois dans notre pays parce que le problème bi ñu am que jeunesse il faut ñu nous pour que nous... bu weer dee ñu fayal ko lu mu tuuti tuuti ñu mën a yóbbu seen kër que nit il faut mu am sutura te loolu mooy indi sécurité ci réew te man dama gëm fu ma nekk ci àdduna bi nag ñun dañ ci war a participer surtout ñun doomu réew mi nekk bitim réew loolu moom indi suma réew man dama gëm Sénégal dafa war a développé wu dama gëm ne ñi ci war a développé réew mi man dama ci bokk te kenn mënu ma ko xotal ba ma ñàkk bokk ci loolu parce que mën naa dëkk fu nekk ci àdduna bi. mais man fii laa choose parce que yàlla moom def mu juddoo fii ci biir réew mi donc lépp li policiers yi bind noonu ci article bi ñu wane noonu du dëgg mu ngi attestation bi ministère tourisme ñoo ma jox lii waa APEX ñoo ko jox ñoo ñu ko jox document yaa ngi nii mu ngi APEX encore ma Ki kii kayitu kër gi la maa ko jënd ak suma xaalis dëkkuma ci kër googu man sama kër personnel laa dëkk donc benn policier wala ñëw suma kër Ça a jox ma motif lu tax ñu fay ñëw moo sonal d' accord bañ naa ko man seen du ma fa dëkk du ma fay nekk man toolee laa nekk la Washington su ma fa nekkul maa ngi Washington ok résidence privée boobu ñuy wax meublé boobu nga xam sama état bi yëpp fa lañ dëkk d' accord man eh, danaa toog ay 4 mois ba 5 mois sax bi yëpp sama sama kër ñoo den du ma fa dugg barke alxuraan yi kanam fa dugg xaw ma la fa nekk te man xam naa ne xale yi sama rak yi fa duñ def

to take a minute to explain to you what's happening currently in my country, in my presence here, because I've received a lot of messages, I've received a lot of talks, information, emails, and etc. inquiring about my safety in Senegal. I'm here to, to confirm to you, to let you know that I am okay. I'm okay in the sense that I came back home, I decided to leave back, to leave the US to come home and invest in my country and to help create jobs and to help participate in the economy of my country and to help make sure I give hope to so many millions of young people who need hope. I was one of those millions of young people who needed hope. And I needed to make sure that what I've acquired in the United States when it comes to investments, but also in knowledge, in capacity building, in skills building, in experiences, in background, that I come back here in my home, the country that made me who I am, the country that I was born from, this country that gave me birth, that educated me, that gave me security when I was young, this country that I love, that gave me everything that my family is from, that I left with tears leaving this country to go to the US looking for opportunities to come home. I didn't go to America to stay there. I went there to go change a course of history for my own family and then for my country. And when this opportunity was given to me, I decided right away that I wanted to give this opportunity back to my home because there is nowhere better than home and there is nowhere like home. And I know you, the immigrants, and my friends abroad who are living abroad right now know what I'm talking about. No matter how many millions you have, wherever you live in the world, I know living in Senegal or in your own country is the best that you can have. Hence why I decided to come back. And when I came here, I didn't decide to live in Almadi or in the heart of the town. I didn't want to show up. an example. Okay. Sorry, I felt forgotten. It stopped, so I had to come back. You know what? Please, madam, madam, après, for those who are calling me, please give me a minute so I can explain. I knew that any economy in the world is agriculture is in the heartbeat of that economy. And I came, I invested in farming. I take young people with degrees and those who don't have degrees, take them to the farms to farm. And when I came to Sindhu, the first thing I did is I started to do to build a library. I bought a house next to my house. And I, this is on my name, on my name that I bought me, I worked for. This is my name, Chon Young. I bought this house. And my younger brothers wanted to exploit the house because the library people wasn't coming and to use the house to do Airbnb and booking. It's very simple. Airbnb and booking. And with Airbnb and Booking, I send them to Apex to get the documents. And then Apex is the government's entity for businesses here, for small businesses. And then I send them to the Ministry of Tourism to get this document, which clearly says that this place is for apartments and then it will be renting to bookings and Airbnbs and etc. From the ministry, the government. Now the police is coming harassing us asking us for money all the time. And I told them to not give them any dime because we are legal. I don't even go to that place, but they come to my personal house, harassing me. They don't have no document from the judge. They don't have any proof of why they police. They don't show me no badges. They don't have no uniforms. And they're circling my house going back and forth. And I told them I'm not gonna accept to be intimidated in my home country. And I'm very serious about that. So this is the whole fact that was happening. Corruption and insecurity. They want to intimidate me, so I stop working here and go back to the US, and I'm not gonna do it. This is exactly what's happening. So I'm taking you, my friends around the world, and let you know that I thank you for your support, and I thank you for keeping your eye to what's happening, and letting the diaspora know that to not be discouraged. when you come, they're always toujours to do something, say something that's going to discourage you, but keep parce because we need to build our country and it will depend on us to do it. Thank you very much. Maintenant, je le dirai en français pour mes amis qui sont à l'extérieur et qui parlent français. Le simple fait est que je suis de retour dans mon pays dans quelques années. Et j'ai décidé de ne pas vivre à Dakar Plateau ou bien en ville. Je cherché un tout petit village qui s'appelle Sendoua, 45 minutes de Dakar. Je vis là-bas dès que je suis arrivé, on m'a dit qu'il y a une maison à côté d'un Français qui s'appelle Robert. J'ai acheté la maison. À côté de chez moi, j'ai deux maisons là-bas, là où j'habite et l'autre maison. Le maire m'a dit qu'on a besoin de livres là-bas, de bibliothèques. Donc on a construit ça, j'ai mis des livres, j'ai mis de l'argent, on a inauguré ça. Six mois après, sept mois après, les jeunes ne venaient plus parce qu'il y avait des soucis de, euh, de sécurité dans la ville et partout, même au Sénégal, pour les enfants. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Je les ai demandé qu'est-ce que vous voulez faire. Mes frères qui gèrent l'affaire, ce n'est pas sur mon nom. C'est juste des maisons, c'est juste des chambres, des, des, des, chambres meublées, des appartements meublés. Il n'y a rien d'autre. Partout en France, ils ont des appartements meublés. Aux États-Unis, ils ont des appartements meublés. Ici, partout au Sénégal. C'est parce que c'est Tchonia qu'ils m'attaquent. Moi, ce n'est pas mon de pain parce que je ne fais pas de l'argent dedans. C'est les jeunes qui ont besoin de ça. Je leur donne ma maison pour l'autre maison pour l'exploiter. D'accord Et Jésus dit depuis le début, je ne veux pas d'alcool là-bas, je ne veux pas des filles, surtout des filles moins de 18 ans. Il faut enregistrer tout le monde qui vient là-bas. Et moi-même, ils m'ont appelé un jour pour me dire qu'il y a un inspecteur de police qui est venu là-bas et dit que personne ne l'enregistre. Je lui ai dit il faut lui refuser, que personne Tout le monde qui vient là-bas, on va l'enregistrer. D'accord Ils sont venus là-bas, ils ont pu le, le registre hier. Et ils craignent que nous, on n'a pas les papiers. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. C'est des mensonges, purs mensonges de la qui est venue du ministère du Tourisme, que je vais publier, je viens de lire. Il y a l'attestation de propreté, c'est ma maison, ok, et ce que Apex, notre institution, nous a donné pour qu'on soit légal et paye les taxes. Donc, c'est pour vous dire que chez moi, à Sendo, qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis arrivé là-bas Je vais le dire, hein. J'ai appelé le maire, un jeune maire dynamique. On s'est mis ensemble, on dit on va travailler ensemble, je vais être à côté, je vais vous je vais vous soutenir. Première chose, on a fait bibliothèque. Deuxième chose, tout récemment, le bus. Il n'y a pas de bus là-bas. Les jeunes, ils marchent 15 km pour aller à l'école chaque jour. Au retour, ils sont fatigués, ils quittent l'école. Le taux des jeunes qui quittent l'école très tôt là-bas, c'est hallucinant à ah, saint si vous venez là-bas de le voir. Ça m'a éclairé. Donc j'ai mis un bus en place chaque jour avec un chauffeur et le maire qui paye l'essence en tant que partenariat. Et chaque jour, on envoie les jeunes. Ce matin même, on a fait 5 voyages. Le matin, 5 le soir, qui me coûte beaucoup d'argent. Et je le fais pour les enfants et le futur de mon pays. Quelqu'un qui fait ça, il ne va pas venir faire des trucs de, des maisons de passe comme ils font avec ces mensonges. Ça n'existe pas du tout. D'accord chaque année, je donne plus de 20 bourses depuis 4 ans que je vis là-bas. Chaque année, les jeunes des bacheliers, ils n'ont pas d'argent, leurs parents ne peuvent pas payer. Je paye moi-même, je les envoie à Dakar des millions pour qu'ils puissent aller à l'école. Puisque j'ai vu qu'on a des problèmes que quand il y a la pluie, les gens ne peuvent pas marcher, j'ai commencé des pavages. À partir de devant chez moi jusqu'à l'autre côté. La création d'emplois, plus de 50 personnes travaillent là-bas, chez moi et dans l'autre côté. Pour moi, et ils sont du village, les femmes et les jeunes. D'accord Donc tout ça, je suis en train de faire parce que pour moi, je dois quelque chose à mon pays. Je dois participer pour ce qui se passe dans mon pays. Et ça m'appartient, moi en tant que citoyen, de ne pas laisser les choses à l'État. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Nous aussi, les jeunes de la diaspora, on doit revenir et participer sur la création d'emplois. Mais si on revient pour participer, il doit nous encourager, mais pas nous attaquer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'illégal Il n'y a pas d'alcool là-bas. On ne fait pas d'alcool. Vous pouvez venir vous-même vérifier à Sendou, appeler la, mairie de Sendou ou les, imams, les femmes, tout le monde, vous pouvez venir voir là-bas. Jamais, jamais de la vie, on, on va de l'alcool là. Moi, je ne bois pas d'alcool, je ne bois pas de, rien du tout. Je suis musulman et je suis fier de l'être. Donc, je fais rien d'illégal, ici et ailleurs. D'accord Donc, je dirais que je vous remercie vous tous pour votre temps et pour votre soutien. Et tout ce que vous avez envoyé comme message, j'ai vu ça. Mais je dirais encore que je respecte les hommes de loi de mon pays. Mon petit frère est dans le système. Et tout ce qu'ils font pour le pays, ils le font pour nous. Parce que c'est le Sénégal qui m'a donné la sécurité par la police, par la gendarmerie, etc. Les institutions de mon pays, je les respecte. Je suis un citoyen du pays. D'accord Mais j'ai aussi des droits dans ce pays. Si la police veut m'arrêter, ils n'ont qu'à venir avec convocation, je leur donne mes mains, ils m'amènent. Moi, ça me tient là. I euh, don't care about that. I will go to police with them. Parce que j'ai rien fait de grave. Mais s'ils veulent, j'ai rien fait du tout. Mais s'ils veulent venir m'arrêter, ils n'ont qu'à venir. Mais avec convocation, je ne vais pas me laisser faire. Les gens qui viennent, ils n'ont pas de carte. Ils ne m'ont pas montré de carte. Ils ne m'ont pas montré de convocation. Purement et simplement mensonge. Ils n'ont pas amené de convocation. Ils sont venus pas en tenue, avec des tenues bifales et des, et des, jeans, etc. Entourer ma maison pour m'intimider et de venir avec eux. Je leur dis, niet, je vais nulle part. Il faut aller chercher des papiers pour me faire sortir d'ici ou sortir aucune aucun membre de ma famille. C'est ce que je dis et je le répète. Même ce matin, en quittant Sindou pour venir voir mon avocat, il y a des jeunes qui ont des trucs de tout ça là, autour de la place, tout devant chez moi. venir nous dire qu'ils vont rester là-bas aujourd'hui. Qu'est-ce que je les ai fait, moi Je veux attraper des gens, bah, on a assez de criminels dans ce pays. Hmm. What did I do? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils viennent m'attaquer? Qu'est-ce que j'ai fait, moi Rien du tout, hein? Je fais que créer de l'emploi et participer pour mon pays. Hmm. Je, prends le drapeau de, mes de mon pays, comme partout dans le monde je vais, je présente mon pays. Hmm. Et ils viennent m'attaquer, on ne sait pas les raisons. Même à ce tout le monde en parle. On ne sait pas qui est derrière ces affaire là Mais je dis que ça ne va pas marcher. Moi, personne ne peut me Il ne peut pas me rester. So, même si on fait qu'on pour les Wolof, encore la même tête, même si on fait qu'on dañoo nekkoon ci illégalité ñu dëkk fii ci réew mi ñibbi si ah, di def loo xam ne dañ ko war a def ci biir réew mi te une ci illégalité mais ben jeune entrepreneur bu ñëwee ci dëkk bi di def dara bu n'êtes ci yoon ça. mais ñoom ñoo ñu war a woo à côté nañu fi ngay jaar fi ngay jaar fi ngay jaar fi ngay jaar bañ yegg fa parce que ñun def ñu ko pour ñu bopp dana créer benn maire boo xam ne bu ko fayee weer kooku dana mën a jël li ñu koy fay yóbbu ci xale mu jàngi fayal ci maire bi feebar jënd ko ci bi war a jàng mu jënd ko ci bic wala kaye naa nga mën na nga joxe ci dépense mais loolu bu ñu ko xeeb loolu mooy économie man loolu su fekkoon sax nekk ma ci yoon ñoom seen doomu Sénégal bu ñëw di parce que tubaab bi dañuy ñëw benn tubaab bu dara jóge États-Unis wala Europe rek tubaab ñëw ci dëkk bi ñu jox ko kayit yu leen neex yépp di ko topp topp ñun doomu réew mi ñoom ñu war ñu créer ay champion yaa ngi dégg ñu war ñu jàppale ñu ñëw ñuy jéem a découragé c' est décourageant pour ma pour ma famille c' pas décourageant pour mes amis c' est décourageant pour mes jeunes frères et sœurs ak ñi may liggéeyal parce que ñoom ñëpp dañ may wax loo fiy def demal nga ñibbi bàyyil fii jaay d' accord parce que bëgg ñu continuer di liggéey hôtel bi la même chose ak fépp fu ma nekk ci liggéey maa ngi investir su nekk ñuy wax ne ma lu mu fi investir je j' investis beaucoup dans ce pays en Afrique même gis nañu ñuy wax école learning Africa mi ngi fi jàmm ñaar ñun ñoo ko moom ñun ñett ay xale yu bëri ñu fay liggéey di ensemble ay lampes solaires di ko yóbbu ci yeneen dëkk yi en Afrique y' a beaucoup d' autres choses qu'on est en train de faire te mosuñ ci wax hmm? ñi ñëw di ma attaqué ndax joxuma leen xaalis man kenn du ma attaqué noonu d' accord donc maa leen di remercier yéen ñëpp pour gàttal wax ci maa ngi ci suma avocat Mamadou Bamba Cissé ñu ngi waxtaan bu ñu paree dinañ dem déposer suñu plainte après maa ngi xaar ci loolu d' accord homme droit yi je les respecte ni ko waxee suma réew respecte naa sama institution moi je suis un citoyen je suis un républicain mais dama am ay droit aussi dama bëgg ñu sàmmal ma suma droit kuy ñëw suma kër pour jël indil ma bu leer ma parce que kenn man mais li may bañ mooy du ñëw di ma bi amul amul sécurité ay nit yu xaw ma police lañ waruñu ma sax carte yónnee soo ay doon taxaw fële di ñëw di ma agressé du ma ko nangu ku bëgg a jël suma bakkan bi aussi du ma seetaan loolu laa wax te dama koy répété waat mais tooñu ma benn policier tooñu ma benn institution tooñu ma état tooñu ma gouvernement. ku dem ba ci àll ba dëkk fa dem ci tool yi di bay il est pas là pour chercher des problèmes mais qui me cherche là me trouvera incha allah. God bless you. Thank you and have good day.